فزت بزار في الأزانة سيدة soxna jaara li ma ca xam man yàllaay bañ dem waaw jaara li ma ca xam sama waajur daf ko doon liggéeyal ci daayira bi daf doon liggéeyal màggat seen ca làmbaay da doon liggéeyal soxna jaara ci daayira bi ba wàcc ab liggéey kere sëñ xalifa bi demee kër ak maam moom gi damaa taxaw ci buntu bi ne ko li sama yaay liggéeyal soxna jaara yal nañu ko liggéeyal xalifa sénégal bi toogal xaadim rasul ci kàttanu borom baax tam itam yal na yàlla dolli seen jàmm ci kàttanu yàlla man Lambaye laa dëkk Lambaye laa dëkk ah dara métti wut sama xel mi rek dem ci sama yaay rek di sant yàlla rek di leen ñaanal di leen gërëm yal na yàlla dolli xéewal ñun jigéen ñëpp nu war a dolli góorgóorlu nag ndax lii moom kenn yéeme na yéeme na yéeme na yàlla na barkeelal. salaamaaleykum ñu ngi sant yàlla bu sant yàlla bu baax di sant sëñ Touba di sant Soxna Diarra te xam ne li Soxna Diarra ko liggéey di sant Soxna Maam Say Diarra suñu jëwriñ ndax soxna maam say jaan ginnaaw yàlla tunu yegg rek moo nu yegg ci yoonu Porokhane yi dina jàppaloo soxna jaar guddi ñu soxla soxna jaar bëccëg ba ni mu wàcceeb liggéey nii ba léegi noonu góorgóor ñu teg soxna Faat Fall Thiam di ko sa sant soxna jaar di ñaan yàlla at mu jot nu am wér ak wér le mën a ñëw siyaar ko mën ko jox suñu xéewal di ko taal na suñu loxo nag guddee bu teg saay rek baatu ni nga koy taal soxna maam jaar di ko ñaan ba at mu jot ñu mën a ñëw siyaare ko yal na yàlla yokk leeram tantaaf ci barkeem di ñaan suñu na gëm na sëriñ Tuubaa ndax sëriñ Tuubaa rek fi nekk tey ëllëg ak maam da di ko sant rek ndax defal nañu lépp lépp luñ soxla rek defal na ko juróom baax yal nañ ko yàgg a siyaare yii ni ngi yàgg fi te wér dafa ñuy xéewal ànd ak gudd fan ak lislaam man maa ngi dëgg Touba kër suñu Cheikh Ndigal Madina sa mën a war a kër suñu Cheikh Ndigal Fall di bàyyi Fall suñu Cheikh Ndigal ah sonn ma ci yoon yoon tubaarkalla maasàllaa suñu mën taxaa ñaan na ci mu sedd guy ñu ñëwee rek yàlla nañ ko demawaat ci jàmm ak xiiwal. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ñaanal màggal gi yàlla nañ ko màggal si jàmm mu jeex ci alhamdulilah soxna jaara li mu ñu defal moom lu bari la ndax soxna jaara royukaay la liggéeyal na sëriñ Touba ba am lii mu am moo defal sëriñ Touba lépp lum am rek dafa sëriñ Touba lépp lu am rek soxna jaara moo ko liggéey. ñun ñi ji ñun nag ñu ngi roy ci soxna jaara ndax ay jigéen lañ moo tax tey jii ñu ñëw di sàkku nag di sàkku ci moom bu baax a baax a baax lépp lu lépp luñ fi ñaan rek yàlla na ko Serigne Touba def yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ko ci réew mi yëngu-yëngu yi am yàlla na ci Serigne Touba def xéewal yàlla na ci soxna jaara def xéewal ba lépp mujj si jàmm ci barke Serigne Touba.